Hi guys, how you doing? I hope that everybody's doing great. Welcome back to the channel. It's your brother Gumbo Joe from Apuran Delang Awolof. Welcome or welcome back. Okay, so in today's video, I'll be talking about 20 phrases you need to know in four different languages, which are English, of course, Wolof, French, and uh, Arabic. So, first of I would like to welcome all the newcomers. Yeah, make yourself at home, feel at home. Okay, so don't forget to subscribe, guys. Yeah, don't forget to do so. Salut les gars, j'espère que votre frère Gumba Diaw de Apprendre des langues en Wolof. Bienvenue or welcome back to my channel. comme niñ koy defee saa su nekk di leen dalal baax a baax di leen ñaan yàlla kàddu yi fekk leen ci jàmm seen mbokk la Gumba Jaw ci apprendre la nga comme niñ koy defee saa su ne ñëwaat yéen ci euh, njàngum anglais waaye wala tim njàngum ay làkk sax laay wax anglais mooy base bi ma bon dina leen ko tekkal ci wolof français français ak arabe bu defee ku nekk ci sa bopp. voilà di jaajëfal di dalal gaa yi doog a ñëw di leen wax dal leen ak jàmm kër gi seen kër la. Eh, gaa yi aboné gul ah les nos abonnés yi seetaan te aboné gul ok ah abonnez-vous ah n'oubliez pas de vous abonner donc des fois xam naa gaa yi dañ koy fàtte mën nañu te yaakaar aboné nañ alors que aboné wul donc voilà abonnez-vous partagez les vidéos et likez loolu dinañu motiver pour ñu mën a gën a continuer waaye loolu dina tax ah, YouTube di gën a recommander vidéo yi yi ni dugal marhaban bikum min jadid أصدقائي وأحبائي الكرام في قناتكم Apprendre so commencez kon inshallah without further let's jump right I thought you went to Touba I thought you went to Touba I thought you went to Touba dama yaakaaroon danga demoon tuuba dama yaakaaroon ne danga demoon tuuba dama yaakaaroon ne danga demoon tuuba je pensais que ben je pensais que tu étais allé à Touba ben tu es allé à je pensais que tu étais allé à Touba. Zanantu أنك أو أنكِ ذهبت أو ذهبتِ إلى طوبى. ظننت أنك ذهبت إلى طوبى. I was looking for my money. I was looking for my money. I was looking for my money. Sama xaalis la doon seet sama xaalis la doon seet sama xaalis laa doon seet o oh, sama xaalis laa doon wër je cherchais mon argent je cherchais ou bien j'étais en de chercher je cherchais mon argent kuntu abhathu an mali kuntu abhathu an mali The house is large. The house is large. The Kër gi dafa yaatu. Kër gi dafa yaatu. Kër gi dafa yaatu. La maison est large, bien est La maison est large. La maison est, large. albaytu waasi'un albaytu waasi'un albaytu waasi'. The room is small. The room is small. The bi dafa tuuti. Néeg dafa tuuti. Néeg bi dafa tuuti. La chambre est petite. la pièce. La pièce petite. La chambre est petite. الغرفة صغيرة. الغرفة أو الحجرة صغيرة. الغرفة صغيرة. My father has arrived. arrived. My father has arrived. Sama baay yegsi na. Sama baay yegsi na. Sama baay yegsi na. Mon père est arrivé. Mon père est arrivé. Mon père est arrivé. لقد وصل أبي أو وصل أبي. لقد وصل أبي. He didn't say that. He didn't say that. He didn't say that. waxul woon loolu wala mën nga wax rek waxul loolu wala waxul woon loolu a baax na il n'a pas dit cela il n'a pas dit il n'a pas dit lam yaqul zalika lam yaqul dhalika lam yaqul dhalik or you can say vous pouvez dire man nga wax ma tey maa qaala dhalik maa qaala dhalik how beautiful she is how beautiful she is how beautiful she is aka rafet aka rafet nga gis benn xale bu jigéen wala wala ku jigéen nga bëgg a bëgg a yéemu ci rafetaayam daal en moo tax mu ne how beautiful she is ak rafet ak rafet waaye ma masalan ci wolof daal ak rafet comme elle est belle comme elle belle comme elle est belle ma ajmalaha wala you can say come here jamila come here jamila ma ajmalaha كم هي جميلة. She is pregnant. She is pregnant. Dafa ëmb. Dafa ëmb. Dafa ëmb. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Hiya hamilun. Hiya حامل هي حامل she is not married she is not married amul boroom kër amul boroom kër amul boroom kër wala uh, sëyul daal elle n'est pas mariée elle n'est pas mariée Elle n'est pas mariée. هي ليست متزوجة. هي ليست متزوجة. هي ليست متزوجة. She's not married. She is divorced. She is divorced. dafa tas am jigéen gu tas daal. dafa tas wala danu ko fase comme niñ koy wax ci wolof danu ko fase wala dafa tas elle est divorcée elle est divorcée elle est divorcée hiya mutalliqa hiya mutalliqatun she's divorced I didn't go to Dakar yesterday I didn't go to Dakar yesterday. I did not go to Dakar yesterday. I did not go to Dakar yesterday. Demuma woon Dakar dembu. Demuma woon Dakar dembu. Wala demb demu woon Dakar loo ci wax baax Je ne suis pas allé à Dakar hier. Je ne suis pas allé à Dakar hier. Je ne suis pas allé à Dakar hier. لم أذهب أمس إلى Dakar wala you can say man nga wax ba tey lam mu mujj amsi bi lam azhab ila Dakar amsi ok lam azhab amsi ila Dakar he is an orphan he is an orphan he jirim la ab jirim la ab la il est orphelin il est orphelin il est orphelin huwa yatimun huwa yatimun huwa yatim Fatima is more beautiful than her mother Fatima is more beautiful than her mother. Fatima is more beautiful than her mother. Fatima moo gën rafet yayam wala moo gën a taaru. Fatima moo gën a rafet yayam Fatima moo gën a rafet yaayam wala Fatima moo gën a taaru yaayam. Fatima est plus belle que sa mère. Fatima est plus belle que sa mère. Fatima est plus belle que sa mère. Fatimatu ajmalu min ummiha. Fatimatu ajmalu min ummiha. Fatimatu aw akthara jamalan min ummiha. Why can't you come? Why can't you come? Why can't you come? lan moo tax mënoo ñëw lan moo tax mënoo ñëw lan moo tax mënoo ñëw pourquoi ne peux-tu pas venir pourquoi ne peux pas venir pourquoi ne peux pas venir limaza la tastatiu almajii limaza la tastatiu almajii aw limaza la tastatiina almajii I won't go alone. I won't go alone. I won't go alone. Man dong duma dem. Man dong duma dem. Man dong duma dem. Je n'irai pas seul. Je n'irai pas seul. Je n'irai pas Lan azhaba wahdi. Lan azhaba وحدي I won't go alone I know myself I know myself I know myself xam naa sama bopp xam naa sama bopp xam naa sama bopp je me connais je me connais je نفسي أعرف نفسي أعرف نفسي Our house is more beautiful than yours. Our house is more beautiful than yours. Our house more beautiful Sunu kër moo gën rafet seen gos ok maam seen bos mais gos lañuy wax sunu kër moo gëna rafet seen gos sunu kër gëna rafet seen gos notre maison est plus belle que la vôtre notre maison est plus belle que la vôtre notre maison est plus belle que la vôtre baytuna ajmalu min baytikum baytuna ajmalu min baytikum. Senegal is bigger than the Gambia. Senegal is bigger than the Gambia. Senegal is bigger than the Gambia. Senegal moo gën a rëy Gambi. Senegal moo gën a rëy Gambi. Sénégal moo gëna rey Gambie. Le Sénégal est plus grand que la Gambie. Le Sénégal est plus grand que la Gambie. Le Sénégal est plus grand que la Gambie. As-Sénégalu akbaru min Gambia. As-Sénégalu akbaru min Gambia. My wife is the most beautiful woman in the world. My wife is the most beautiful woman in the world. Sama jabar mooy jigéen ji gëna taaru ci àdduna bi. Sama jabar mooy jigéen ji gëna taru ci àdduna bi sawaay yow bëngal yomb de <laughs> waaye bu ah, la ok donc neena sama jabar mooy jigéen ji gëna taaru ci àdduna bi mon épouse est la plus belle femme du monde mon épouse est plus belle femme du monde Mon épouse est la plus belle femme du monde. زوجتي أجمل امرأة في العالم. زوجتي أجمل امرأة في العالم. زوجتي أجمل امرأة في العالم. Do you know anyone here? Do you know anyone here? Do you know anyone here? ndax xam nga fii kenn ndax xam nga fi kenn wala ndax am na ko fi xam connaissez-vous quelqu'un ici ben connais-tu quelqu'un ici connaissez-vous quelqu'un ici hal ta'rifu ahadan huna hal ta'rifina ahadan huna hal ta'rifu ahadan huna do you know anyone here okay guys that's all for me today uh hope that it was very useful for you so guys don't forget to subscribe yeah hit subscribe button okay don't forget to do that guys thank you so much okay guys c'est tout aujourd'hui voilà di am yaakaar ba nga wax ni am na solo donc voilà di leen wax euh, continuez n'oubliez pas de vous abonner les gars continuez à la chaîne bu leen ko fàtte baax parce que c'est très important loolu dinañ ci ya dinañ ci baax kon gaay bindu abonnez-vous likez et partagez ok shukran lakum ya asdiqai wa ahibai kiram ala almushahada wala tansu al-ishtirak ok donc fi amanillah okay guys that's all for me today see you in the next one have a good night or have a good day bye bye